asalaamaaleykum maa ngi nuyu askanu Sénégal yëpp di féliciter F24 yëpp di jël même style que premier ministre Aminata Touré. bëgg waxtaan aussi directement avec le président Macky Sall. On a parlé des Sénégalais qui sont en prison mais te jii dama xam ni président Macky Sall moom tamit mi ngi ci prison bu doy waar mooy la prison de sa conscience. te metti lool parce que gor li ko mën a sonnal. mooy gàcce ak conscience boo xam ni mu ngi lay dóor mi ngi lay duma munoo nelaw munoo lekk munoo dox amatoo sa liberté conscience rek moo ko mën a teg nit moo ko mën a teg doomu aadama te président Macky Sall yoon laa ko bëgg a may su dee déglu na ma su dee déglu na waa F24 yoon bi mooy mu généreux le courage, en réalité, du dóor du violence mais le courage c'est d'être généreux mooy que puiser au fond de soi-même et contre tous ces conseillers démons contre yow sa propre ambition ak say passion nga mën a am courage de puiser au fond de toi-même et sortir des paroles généreuses des paroles généreuses pour sauver wax dafa doy waar wax dafa nekk loo xam ne lu kéemaane la wax moo tax suñu boroom di wax ci alxuraan tamit nii wax de dafa wax ju baax dafa mel ni garab joo xam ni day meññ ila mi diin di joxe de fruits mais wax ju bon tamit dafa nekk garab boo xam ne dafa déraciné wu xamoo ci kaw lan lay màpp kon wax au début était le verbe suñu boroom tamit ne kun et lépp lépp lépp wax kallaama dafa am solo tey jii li ñuy xaar ci président Macky Sall mooy cette générosité de faire face aux Sénégalais au peuple sénégalais et dire tout bonnement qu'il renonce au troisième mandat parce que li gën a garaaw si demain s'il attend dans un mois pour dire qu'il n'était pas candidat parce que yenn saa damay dégg nuy wax ni lu tax ngeen di def lii yëpp te Macky Sall waxagul il n'est candidat ma ne ce serait encore beaucoup plus grave si en réalité il n'était et qui laisse des morts et qui laisse cette situation perdurer, amener des morts économiquement qui est des pertes, je dis en ce moment ce serait encore beaucoup plus irresponsable. Président Macky Sall euh, tey jii même ci ay instruments économiques instruments wu gestion depuis àdduna nekk àdduna sagesse daf ci am doole daf ci am place et je l'ai rappelé une fois au Parlement dine ci au bas de l'échelle da ngay dégg les données nga tegaat ci kaw mu nekk information nga demaat ci kaw a kaw mu nekk connaissance nga demaat ci kaw mu nekk intelligence mais lii nekk ci kaw intelligence mooy hikma mooy sages te lii tegu ci kaw loolu mooy dëgg kon lii gën jege dëgg mooy la sagesse et l'équilibre te borom bi saa yuy wax saa yuy maye day on lui a donné le savoir mais on lui a donné aussi la sagesse tey jii on ne peut pas diriger un pays une organisation sans une dose de sagesse j'interpelle le président Macky Sall réew mi fi mu sol soxla tey li mu soxla du alal du xaalis du loi du dara li mu soxla mooy ce qui se situe au-dessus de tout cela mooy hikma et la sagesse Nelson Mandela a été capable de réinventer les voies pour se reconnecter à cette sagesse sinon réewam à l'époque quand il accédait au pouvoir mais dafa naroon jeex tàkk mais il a été sage mettre au point ou en avant ay concept vérité et réconciliation nga dem au Canada avec les Amérindiens ils ont été capables aussi de mettre en avant ay processus yoo xam ni le peuple s'est réconcilié tout cela c'est en mettant en avant la sagesse bu ko code pénal ou loi di ko tënk bu ko j'ai été membre du gouvernement, je sais comment un dirigeant peut être complètement enfermé dans une prison. Le président Macky Sall, ayez, ayez le courage de faire face au destin à l'histoire. Et vous qui êtes à côté aussi du président Macky Sall ngir yàlla dëggu leen nit soo ko bëggee da nga koy wax dëgg nit soo ko bëggee donne-toi la liberté de lui donner des bons conseils mais aujourd'hui malheureusement au nom de je ne sais quoi vous êtes en train tout simplement de perdre le président Macky Sall Macky Sall kon jëlal la parole fait le discours à la nation dites simplement que vous renoncez à ce troisième mandat et libérez Ousmane Sonko libérez Ousmane Sonko et je parle aussi aux juges un juge lorsqu'il rend une décision de justice bien sûr il doit s'appuyer sur la situation des faits mais il doit absolument agir sur la situation Les juges en ce moment n'agissent pas sur la situation et lorsqu'on n'agit pas sur la situation, et se transforme en procès politique, en problème politique et situation Sénégal tey jii la toll. kon maa ngi gërëm ñëpp que le Sénégal tout entier se mobilise et qu'on libère le peuple et que Macky Sall nous entende et entende le peuple merci beaucoup. C'est fini, hein? Merci beaucoup. Salaamaaleykum. F24 maa ngi leen di remercier coordonnateur fii seen kër la et comme j'ai l'habitude de dire ñun ay soldaaru réew mi lañ chaque fois que vous aurez besoin des locaux vous n'avez pas besoin d'autorisation maa ngi am xol bu metti ci jële ci kàddu di wax ci situation bu réew Macky Sall na am gàcce fu mu toog parce que tout simplement dafa organiser dialogue le mercredi dëkk bi tàkk le jeudi c'est vrai on nous parle de violence cette violence elle est à chercher ci dialogue bi Macky Sall def parce que kaddu yu violente ces paroles violentes yi nga xam ne dégg nañu ko ci dialogue bi Macky Sall organisé la jeunesse sénégalaise delloo nañu ko parce que ay sëriñ bu ñu taxawee naan ko gëmmal te dóor ñeneen naan ko booy gëmm te dóor na ngay xoolaale te dóor jeunesse bu Sénégal wan nañ ko ne ko bu ñu xippee danan fay c'est pas pour d'accord ci yenn ci situation yi xew moo tax may wax ne nañu bàyyi di yedd jeunes yi nous avons une jeunesse consciente ñoo xam ne ñoo nu gën a conscient des enjeux de l'heure ñi génn dans une manifestation façon bu nekk ngay am mais ñoom ñëpp mbaam gàtt na mais ci jur gi la bokk cette jeunesse opprimée cette jeunesse sans espoir ñoo génn jàkkaarloo ak Macky parce que nag réew mi maamu kenn moomu ko kenn donn ko dégg nañu ko muy wax ne nañu ko ko ñaan ci njekk no par force la et wan nañ ko ne ko par force lay doon moom du def troisième mandat et les Sénégalais sont déterminés à lui faire face j'interpelle les forces de défense et de sécurité parce que nag on va se battre comme ni ko su ma naatango yi waxee léegi pour qu'il y des enquêtes mënuñu comprendre force occulte yi ñuy wax mënuñu comprendre force obscure yi ñuy wax parce que nag dafa mel ni saaga suñu ay force de défense et de sécurité munuñu deux mille vingt et ba léegi ñu ñuy wax ay forces occultes malheureusement ñooñu ñu tuddee force occulte ci imaginaire u Macky la parce que li mu bëgg mooy jouer sur la stratégie d'apeurer les populations Macky Sall xale yi génn ci mbedd mi li ngay tiitali nit ñi coup d'état armée ak nangam sangam booy xamuñu ko parce que dunduñu ko nit ki loo ragalul loo xamul mënoo ko ragal ça veut pas dire que dañuy woo fitne ci réew mi mais kenn dong moo yor clé jàmm ci réew mi actuellement mooy Macky jàmm jooju mooy taxaw pour wax réew mi ne leen bëgguma troisième mandat du ma def troisième mandat donte bëgg na ko moo tax ñu génne ñun carton rouge pour lui dire que ñiy xëccoo ñëpp war nañoo bokk ba mu des yow Macky Sall waruloo ci bokk kon tentative yi muy def pour éliminer ay candidats notamment cette instrumentalisation de la justice il faut que ça cesse Macky Sall réew mi moo moo ko donnoo ko élection yi di ñëw ku ci nekk ku ci am yéene daf ci war a bokk ce qui est en train de se passer ku nekk ci ñun ñi xamoon nañ ne fii lay mujj mais nag am na ñoo xam ne bu ñu reppee ci xare lu ñu jiñ dañu koy xet yaakaaroon na ne lii fi am du fi am yaa waxoon na ne lii fi am dootu fi am mais le peuple est souverain cette jeunesse elle est debout opportunité bi ñu am pour ju dégg leen nañu leen bàyyi xel bu kenn ci politiciens yéen ñi toog fii yaakaar ne yéen a tax ñu jóg ki taxaw ci buntu Auchan bi di ko dajji kooku xeexul pour ñun ñi dafay xeex pour survivre ceeb ba mu fa am wala dëwlin bi mu fa am wu nanguwuma ne daf ko war a def mais mun naa expliquer lan moo tax mu koy def sécurité bi ci jiitu mooy fexe ba sa doomu réew nekk ci situation bi gën sécurité bi ci jiitu mooy fexe ba xale yi ñu am liggéey ngir mun a tàggat seen bopp ngir mun a faj seeni soxla sécurité bi jiitu mooy fexe ba démocratie lal law ci réew mi te démocratie pour mu law faw liberté jiitu sécurité bi jiitu mooy fexe bañ noot démocratie li xew ci f mercredi dernier ngay dialogue nga ne yow yaay dialogue keneen du dialogue mété buur ñu dem ci siège grand parti nga fekk leen fa génne leen démocratie day noyyi da nga koy bàyyi mu noyyeeg bakkan bu noyyeewul bakkan noyyeeg gémmiñ boo fattee gémmiñam mu yëngal ay loxoom bu yëngalee ay loxoom fitna rek lay doon donc le seul et unique responsable de ce qui en train de se passer du kenn c'est le président Macky Sall ku artuwul nag di nga àtt ñi war a wax nañu wax ak moom xëy na sax wax nañoo ak moom mais dafa dëgër bopp boo ko xoolee mu ne ñum noonu noonu la dëgëree bopp et lu mu matt day dagg mais dina xam ne ñu on est déterminé on est engagé lu ko lu mu ko jaral moom pour yàq réew mi na ko jàpp na ko na ko na gëm ne jaral nañu ko ñun aussi pour defar réew mi je vous remercie. merci beaucoup. ngeen may ma xëy na monsieur le coordonnateur ma am style boo xam ne président Macky Sall ci boppam lay waxam ndax jàpp naa ne ci taabal bi yëpp xëy na maa ko ci gën a xam ndax gën a yàgg ak moom monsieur le président ñun de ba nuy ànd ak yow gëmuñu woon ne fii la ñuy mujjee ak musuñu ko imaginer ndax maître Moussa Diop mii toog ba ci Cheikh Tidiane ba ci yow mii coordonnateur 2011 ñoo àndoon ne ca place de l'obélisque sa soxna di fa maye sandwich di fa joxe ndox bind t-shirt non au troisième mandat sol fa mu ngi ci internet jour boobu ci lañu ñu boom Mamadou Diop yal na yàlla xaare ko àjjana ah ñu ànd yow ba fii ñu jàppoon nag ne wax dëgg yàlla mënuñu woon a imaginer ne fii la mbir militaire monsieur le président l'heure est très grave nañ ne l'heure est grave mais elle est très grave monsieur le président bul topp wax naa la ko keroog ñii di la pousse ci lii nga dugg nii amul issue c'est une voie sans issue wax nañu ko Sénégal ñuy def la une de toute la presse internationale ay mbokk yu ne Japon ancien collègue ñu naan lu xew ñu nekk Amérique latine ci dëkk boo xam ne on l'appelait l'exception africaine l'exception africaine ba ci niñ daan traiter les journalistes nga ne woon yow ci sax ay kenn du fi arrêté journaliste tey Sénégal on fait partie de dëkk yi nga xam ne moo ëpp journaliste yu ñu arrêté kon monsieur le président de la république nii nga jàmbaarloo ak say xale dégg naa nga ne vous savez bu battre parce que toujours dañ lay vous voyez ñun de jiwuñ la loo loo xeex ak suñuy ndaw jiwuñ la jiwuñ la loo xeex ak ñun seize mois seize monsieur le président defaraatal sa toogaay defaraatal sa toogaay fii ay terroriste newuñu fi man duma terroriste maag yow a àndoon xam nga ma duma terroriste fii benn terroriste amul ci F24 ça n'existe pas li am kay mooy une jeunesse consciente et qui refuse aussi lii nga ko bëgg a teg jëlal lii yëpp nga teg ko ci suuf parce que li intéressé sénégalais yi intéressé aussi yaay yi ñu doon ba ci maam yi mooy jàmm dellu si yoonu jàmm mu ngi ci sa loxo mooy d'abord nga teg affaire procès bi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ne du procès ndax koo toppee viol topp ko euh, menace de mort ñu ne la loolu amul la ko la waroon mooy nga ba ko ñibbi jëlal say juge comme xam nga ni ngay waxtaanee ñoom nga jël solution teg lii yëpp ci suuf mu jeex xam nga ni nga koy defee ñaareel ba nga jël kàddu. ne troisième mandat bi kat xëy na mu ngi wan sama xel kooku sax mën nga koo bañ a wax ndax kilifa nga waaye teg naa ko ci suuf bu ko defee suñu doom yii ne ci biir kaso bi ñu bàyyi leen école a ngi waaj jeex foog ñu def yi bac foog ñu def fi brevet foog ñu terminer seen seen i examen à l'université ñii war a dellu ci atelier yi ñii yor seen commerce ba ci ñi yor boutique mbagg ne ci biti mën a dellu ci seen activité waaye nag. sunu fukki xale yeeg juróom-benn yi nga xam ne seen bakkan rot na ci kooku moom kenn mënu koo faase waaye nag premier pas pas yii ñu la wax boo ko defee jàmm dellu si waat kon képp koo xam ne yaa ngi dugal sa loxo wala sa xalaat wala sa xel ci voie de solution voie de solution yaa ngoog teg procès bii ci suuf xam nga artifice yi ngay jaar juridiquement pour ñu jàll ci leneen. ku ne doon candidat Ousmane Sonko doon candidat Mimi Touré doon candidat ku ne doon candidat Khalifa Ababacar Sall ku ne doon candidat yow nga wut sa candidat yow moom mënoo bokk loolu la yàlla dogal ndax nag dañ laa fal falaat la ñun président dañoo wàccoog yow dañ laa defal teraanga bu ne ndax 2011 nag du jëkko woon ci opposition bi waaye sénégalais yi fal la 2019 ñu ànd ak ak yow ñun ñii ñu ànd ak yow ñu falaat la ci diggante bi mille 2016 nga ne nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs wër ko wax ko fu nekk moo tax keroog la nga wax ñu ci bëri comprendre duñu ko am nañu comprendre li Moussa wax ne da nga ne ñun ñi àndoon ak yow xamoon nañ ne buñ la ne wii da ngay am troisième mandat loolu de mosuñu koo xalaat waaye man la ma jàpp mooy da nga ne opposition ba nga xam ne ñoo doon wax ne boo amee wii da ngay def troisième mandat donc wax ci sax daanaka kenn comprendre waaye la ci yomb que ñëpp jàpp ko mooy nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mooy cette situation donc monsieur le président l'heure est très grave il faut sauver le peu qu'il reste à sauver ci li nga xam ne moo la dese pour les huit mois à venir xale yi nga xam ne perte nañ ci seen bakkan kooku duñu ko baal képp ndax nag neuf mois la ñu leen ëmboon jur leen ñi ñun ñii ne woon naa duma ci wax parce que vie privée la waaye dañuy interpeller madame la première dame dame la ñu wax une dame c'est une femme madame la première dame vous êtes une mère lii suñu xale yi di di di di daj wax ci ak monsieur le président de la république ñu arrêté li ñuy gis ñoo xam ne kenn xamul lu ñu doon kenn xamul policier lañ kenn xamul lu ñu doon gis nañ leen vidéo yi nekk ci ñépp di ko témoigner loolu mu dakk immédiatement ña nga xam ne def nañ ñaawteef yooyu ñuy ut ñu dinañ leen topp ci yoon buñ leen topp Sénégal yi topp leen feneen muy CPI muy ci yeneen dëkk yi nga xam ne dañu am le principe de la juridiction universelle ci yenn crime yi y a pas que la CPI aussi il faut ñu xam loolu juriste yi xam nañu ko mais ci diggante bi madame la première dame en tant que maire ñun ñëpp ñun ay jigéen ñii fi yoru ay doom dañoo sukk jur xale yi ñu rey téyal loxo président de la république ne ko mu arrêté lii nga xam ne mësuta am Sénégal ba Sénégal di Sénégal musu ñoo toll à un niveau aussi bas de notre démocratie musula waxal ak moom personnage privé nga ne woon ma du ma ci wax waaye nag leur est tellement grave que yow ci sa bopp mi nga xam ne vous êtes une mère on a appelé toutes les mères à venir manifester toutes les femmes toutes les grand-mères toutes les jeunes filles borom kër yi it ñëw parce que bu sa soxna génn xanaa doo doo ko bàyyi mu dem moom kenn xale yi ñëw ku sa yaay génn xanaa doo ko bàyyi mu génn moom kenn waaye madame la première dame da nga am une responsabilité première tuddee wuñ la première dame pour rien de c'est pour que aussi nga jox les conseils au président de la république nga yegg nga téye moom li ko war du xeex ak ñun je sais me battre laa dégg mu wax keroog non non non non non waroo xeex ak sa peuple monsieur le président de la république waxoon naa ko amul benn président au monde boo xam ne am na armée wala police wala gendarmerie bu mën a dox digganteem ak askanam loolu du sa cër bu battre avec nous du sa cër mën nga nag ci politiciens yi nga seet nooy def waaye sa battre avec votre peuple tel qu'on l'a depuis trois jours loolu du sa cër monsieur le président la république encore une fois tegal li yëpp ci suuf tegal procès bii nga xam ne kenn ci Sénégal nanguwul ne procès bu jaar yoon la ñaari chef d'accusation ñu dàq ñaari chef d'accusation borom dafa war a ñibbi bàyyi candidat yëpp bokk nga libéré suñu xale yi ci mbedd mi ñu def enquête seet ñi nga xam ne ñoom ñooy les fameux nervis yi parce que nag moo naa des indices aussi danañ leen topp ba xam ñan lañu ba ñoom ñu mën a répondre devant la loi mooy dëgg te nga bàyyi ñun ñii F24 aussi ñi ngay sonal salle bu ñu mën a réunion yi sax mënuñ ko am ñu ne dañuy dialogue waaw dem ci lieu privé privé parce que amuñu am lieu public nga yónni gendarme yi pour ñu génne ñëpp sànni leen monsieur président bu fekkoon ne noonu lañ def ak président Ablaye Wade defoon 2011 kon doo yegg si fii kon doo yegg si fii dañu la woo commissariat central. ci blanchiment ba ñu gisulee dara dañ la bàyyi nga dem noonu nga waroon a doxalee Ousmane Sonko opposant nga woon moom opposant la ku ne nekk candidat ni ma ko waxee ñi bëgg a nekk candidat yëpp nekk candidat 2011 y avait 12 candidats yow la yàlla fal jaarale ko ci sénégalais kon li nga xam ne mooy sa cër te vraiment ñun def musuñoo xalaat ne dañ yegg si fii ak yow musuñu koo xalaat sama diggante ak yow nag lu ne xaj na ci waaye mën ak yow la woon waaye sa diggante ak les sénégalais la jeunesse sénégalaise tout particulièrement bi nga xam ne 2011 ñoo la fal suñu meeting 2011 yi y'avait pas de jeunes de plus de 30 ans kooku maa ci teg su ma bët ñoo la faloon mënoo ñëw dix ans après na da ngay xeex ak ñoom mënoo ñëw 10 ans après ñu feesal les prisons de jeunes mënoo ñëw 10 ans après la nga doon xeex contre le président Ablaye Wade muy troisième mandat nga ne koy indiwaat. monsieur le président l'heure est grave asalaamaaleykum wa rahmatullah bu ma marsawoo peuple sénégalais yëpp def naa ni ñu fi toog yëpp wax nañu li nga xam ne métit bi ñu teg Sénégal depuis un certain temps damay dugg dans le vif du sujet ci ñetti point premier point bi mooy lu indi li yëpp lu ñu dund depuis jeudi parce que sama intervention dama koy def uniquement sur l'aspect juridique sama métier pour que sénégalais yi comprendre un peu parce que ñu bëri comprendre poursuivre nañu benn leader politique muy sénégalais comme tout le monde di membre du f ci poursuite yi procureur lu ñu koy reproché mooy viol ak menace de mort ñu jóge ci procureur egg ci juge d'instruction toujours viol et menace de mort ñu jël ordonnance de renvoi yónnee ko devant la chambre criminelle war ko juger toujours pour viol et menace de mort ñu egg en pleine audience ñu requalifier les faits donc c'est nouveau bu ñu requalifier les faits war nañu permettre ki nga xam ni ñu ngi koy poursuivre mu formuler des observations dans le respect lu ñu naan en droit du contradictoire mais loolu amul sénégalais yi li ñuy jàpp devant un dossier aussi sensible et aussi léger Je me rappelle, le 7 février, j'avais dit, 2021, j'ai rendu visite à son Sonko, chez lui, et j'ai écrit qu'il n'y avait pas de viol et que je sentais la puanteur d'un complot. Sur ce point, je peux regarder tout le monde les yeux dans les yeux. Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de viol. sénégalais li jàpp li ngeen ko toppee woon te bind ko ci parquet bind ko ci instruction ñëw indi ko devant la chambre criminelle bu fekk y a pas de viol on l'acquitte un point à la ligne waaye bëgg à tout prix rendre la personne inéligible créer fa une nouvelle infraction gis nga le droit on peut le tourner dans tous les sens def ci lu la neex waroon nañu yem juste ci accusation bi yóbbu nit ñi devant la chambre criminelle ancienne cour d'assises acquitté ko parce qu'il n'y a pas de viol Sénégal jëm ci kanam parce que li yëpp du xew mais vouloir le rendre inéligible comme ni ñu ko defee pour d'autres loolu moo indi problème bi et ñu ngi koy naqarlu parce que tout le monde nous regarde tey sénégalais c'est la risée du monde nous étions une vitrine démocratique mais fu ñu toll ni aujourd'hui je pense que on a honte même de dire qu'on est sénégalais ci loolu le F24 va poursuivre son travail pour que 2024 képp ku war a bokk-bokk ak ay galgal yooyu ñi dindi ko fi dinaa ñëw si troisième point mooy wax léegi parce que c'est continuité la deuxième point bi bu ñuy wax démb gis ngeen des autorités policières def seen conférence de presse à partir de données yoo xam ni dictées par des politiques c'est vrai qu'ils sont sur le terrain ñun tamit quelque part on est sur le terrain Sénégal lañ nekk gis nañ fi loo xam ni en mars deux mille vingt et un diñ ne woon amul sur le maintien de l'ordre public waxuma la la sécurité privée des personnes et des biens l'ordre public ce n'est pas du ressort de privé jël ay personnes yoo xam ne nekkuñu policier nekkuñu gendarme nekkuñu force de défense et de sécurité jox leen ay armes on rappelle les nervis jox leen ay pick-up on les a vus ñiy jaar ci kaw policiers di génn kenn waxu leen dara devant les gendarmes di tirer sur la population su ñu nee loolu amul ils racontent leur vie et dans la conférence de presse d'hier waroon nañ ci wax mais on voit des photos ñu ne ñii c'est des gens qui sont mêlés c'est des forces occultes et pourtant ces pick-up la ont pris départ devant la permanence de la paix j'appelle le procureur à me convoquer, comme nous me convoquer à lui. Je lui donnerai les images. Qu'est-ce qu'ils font là-bas Les forces de défense et de sécurité pour les citoyens, pour le Sénégal, quittent les commissariats, les camps militaires, la gendarmerie pour accomplir leur mission. Pas devant dans une permanence politique. Les plaques d'immatriculation, on va les donner. L'enquête sera là devant le juge d'instruction qui va approfondir. Donc, ak travail bi nga xam ne F24 mi ngi koy def dana egg à la CPI ñun ñëpp nous irons travailler là-bas moi je suis avocat à Branco dana def lu mu def dinaa def lu mu def mais ku fi dee ñu ñu jël dossier yi jébbal ñu ko ñu dem foofu képp koo xam ne rayoo sax mais tu es là en train d'appuyer ñii di rey par ton langage de haine tu seras dans l dossier moi je l'ai dit à plein de gens j'ai beaucoup d'amis hein qui sont de l'APR voilà nekkuma ab mosuma nekk APR mais j'étais dans le Benno Bokk Yaakaar ñàkk fulla ak ñàkk fayda moo tax ñenn ñi def li ñuy def mais on ne m'a pas accusé de malversation financière après six ans et voire géré 88 milliards loolu indiwu moom mais bu dëgg jotee noppi sikk la il faut le dire j'ai quitté le rang en travaillant pour le Sénégal et non pour un homme ceux qui travaillent pour un homme ils sont là pour des privilèges c'est la raison pour laquelle je termine sur ce deuxième point pour dire que ces nervis-là n'ont rien à voir Un ami journaliste me disait ce matin, quelle est la différence entre nervi et agent de sécurité Mais c'est très simple. Un agent de sécurité, il assure la sécurité des personnes et des biens sur le plan privé. Soit que pour ce que je gère ses biens, ou assurer la sécurité en tant qu'homme politique. Un nervi, c'est celui qui est payé pour faire de basses euh, des, des, des, des manœuvres, un agent de sécurité, c'est pas ça son boulot. C'est ça aussi qui est là. Je pense que nous avions aussi un contrat de 45 milliards. ñenn ñi ragal ci wax man ragaluma ko nit ñi wax fu mu arme yooyu dugg je pose une question très claire arme yooyu fu mu dugg de toute façon la CPI viendra expliquer clairement lorsque les personnes qui sont décédées inutilement leurs dossiers nous parviendront troisièmement et, et dernière position gis nga fi neewoon nañu Abdou Diouf président Abdou Diouf n'est pas un n'était pas un homme de poigne mënul gérer réew mi yore na réew mi 17 ans am na lu mu fi def au moins le président Abdoulaye Wade ba mu ñëwee ñu ne amul karaw attanul réew mi le président Macky Sall ba mu ñëwee le président Abdoulaye Wade avait dit sama élève la deux mois on n'aura plus de salaire nul n'est indispensable ku pare na nga dem président Macky Sall fi mu toog man mii falaa maa ko fa toogloo ak keneen on sait ce qu'on a vécu en 2012 avec ñoom Mamadou Diop ce vendredi 27 janvier 2012 le jour où le conseil constitutionnel de rendre sa décision moom moo noot jour on était sur la place de l'obélisque bu fekkee xeex nañu nag ensemble contre un troisième mandat waroon na jóge feneen ba mu fekk baax ñi nga xam ne ñoo ko xeex comme le président Macky Sall et d'autres j'ai entendu le 31 mai dernier en plein dialogue national parce que je suis parti au dialogue li ma bëggoon dégg dégg naa ko fa le troisième mandat fait partie des débats bu ko waxoon bokk ci ma jóg yéen dem sama yoon on m'a privé de parole et je parle au ministre de l'intérieur qui n'a pas été sérieux parce que jël na sama nom j'ai dit que je vais mais ba ñu ko tegee devant le président il dit celui-là ne parlera pas ça ne m'arrange pas nañ ko yóbbu ci ñoom Moustapha Niass xam nañ samay parole man je ne du ma ko raay mais quand j'ai entendu le président de la République dire ci njëkk teraanga ma delloo leen ko ci ndénkaane bu ñu la dénk moom moo ko ku la ko dénkoon ne la delloo ma ko pare nga nga ne ma non da ngeen may saraxu j'ai l'impression qu'on a fait des choses en 2012 pour rien de pare teg ci ñi àndaloon ak man en 2012 xam nañu bu ñu ba waxee référendum voté i ils savaient que j'avais droit à un autre mandat à partir de 2024 faux archi faux c'est de l'escroquerie politique j'étais dedans j'ai voté le oui j'ai fait voter le oui bu waxoon ñun ñii que le oui su ngeen ko voté j'aurai droit à un autre mandat en 2024 man du ma ko voté ñàkkuma fay keneen du ko voté le référendum alors bu fekkee argument boobu sax mën nañ ko accepter un peu c'est de n'importe quoi mais acceptable pourquoi avoir di le 31 décembre donc deux ans après 2016 2024 su ma defee sama sept ans bi ak cinq ans ba il faudra partir il se contredit pourquoi l'avoir écrit dans un bouquin donc l'argument ne tient mais nag j'ose croire encore que fi ñu toll nii en disant que ma xool ma bàyyee leen ko il est en train de tanguer fii dem rek benn issue moo fi def pare nga say ñaari rakka da dem keneen ñëw ci jàmm c'est ça le Sénégal et je pense que je vais limiter là di remercier journalistes yi fi toog yëpp di xam ne tamit le Sénégal benn bopp la duñ ma jeexal te waxuma kilifa diine yi nañu génn wax parce que y a un silence là bu ñu xaar ba yëfi gën a egg fu mu war egg ñu naan suma ma xamoon il faut qu'il parle c'est aussi le Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen sant